salaamaaleykum mbokk yi nuyu nañ leen bu baax a baax ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax waaye nag di leen ziar foo leen mën ci nekk ñu ngi leen di bàyyi xel di leen wax ne nag dellu siwaat nañu ci seen émission 7 voix du cœur sur la 7 TV comme tous les mardis ñu ko daama defee nag ànd ak kenn ci li ci xolam jamono ji may wax ak yéen nag ñu ngi fii ci fi nga xam ne mooy euh, Kër Massar MTOA ñëw nag fi nga xam ne mooy site euh, Cheikh Lo ñëw seet benn jàmbaar mu tudd euh, Cheikh Ndiaye Cheikh Ndiaye nag euh, mi ngi nekkoon nag li nga xam ne rek mooy ci lama bi loolu servir ci li nga xam ne rek mooy armée de l'air muy kon li nga xam ne rek liggéeyal réewam mu doon koo xam ne nag dañ ko yebaloon fële ci fi nga xam ne mooy Mali pour euh, maanaam euh, ci li nga xam ne rek euh, mooy laajtu laajtu ONU foofu la daal di amee nag accident. muy loo xam ne rek métti na trop ndax nag mi ngi nekkoon veille yu màggal Touba muy préparé mu doon loo xam ne ca la jógee daal di rek am paralysé ñu daal di koy indi ci même réew muy Sénégal muy fi mu jóge part mii doon paj mu yàgg ba tey 2010 la dugg armée 2018 la def boobu accident boobaak léegi nag mu ngi ci kaw lal muy lu yàgg ba bi doomam di juddu sax fekkewu ko ñu bàyyi ko mu daal di nuyoo ndax lañuy wax te ne du teew ñu ne taat dañ koy bàyyi mu daal di nuyoo laataa ñuy cause bu baax a baax ci moom ak ci li nga xam ne rek mooy jaar-jaaram ak li nga xam ne mooy feebar bi nga xam ne tey moo waral ñu ñëw seet si ko Cheikh Ndiaye nuyu nañ la bu baax a baax. waa ah, ñu ngi leen di fay bu baax a baax a baax. Mhm. Euh, ma bàyyi la rek euh, nga daal di nuyu ñu ñuy seetaan euh, laataal ngay def li nga xam ne rek mooy sa présentation ci wàllum l'armée bi ci ban koor la ak lan moo la yóbbuwoon fi nga xam ne rek mooy Mali. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yonent bi santaat seen Tuubaa bu baax a baax mhm. di ñaanal njabootam bi yëpp yàlla yàggal leen fi te ñu mhm. ànd ak wér di santaat. kilifa diine bu nekk Sénégal di santaat waa église bi euh, di ñaanal njabootu sëñ Fallou gi nga xam ne ñoom ñooy sama euh, buntu si yoonu sëñ Touba gi yàlla yàggal leen fi loolu seen taxawaay. Euh, Cheikh kat ci Cheikh Lo euh, laataa ñuy xuus sax ci li nga xam ne mooy détail bi dañuy dem seeti ki nga xam ne rek mooy Awa Diallo mu daal di ñuy ñëwal ci portrait Cheikh Ndiaye moomu léegi léegi lay doon sur la 7TV ci seen émission 7 voix du Cheikh Ndiaye militaire la mu ngi juddu ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru octobre 1987 fii ci Ndakaaru mu am ñaar fukki at ak ñett mu dal di dem ci armée bu Sénégal ginnaaw bi mu amalee formation bu Bango ñu dal di koy affecté eh, ca biir armée de l'air ca groupement 7 opérationnel bu armée de l'air septième Gowa foofee nga xam ni def na fa lu tolloog fukki atu service mu bokk ci troisième détachement sénégalais bu maison multifonctionnelle intégrée des Nations Unies ngir ñu indi dal ca Mali muy MINUSMA Cheikh Ndiaye bokk ci escadron fusilier bu armée de l'air moom nag dafa dal di gaañu ba ñu amalee ab opération ci Sévaré nekk ca Mali mu doon accident bu doy waar ñu dal di koy évacuer en urgence fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre ci clinique Pasteur bu Mali ginnaaw gi nag mu dal di dellu si fii ci Sénégal fii nga xam ne dina fi def juróomi weer yoo xam ne da koy tëdd ci hôpital principal bu Ndakaaru ba mu jógee ci loolee nag fitna yi dal di door dundam dal di yàqu waaye ba léegi amul solution Cheikh Ndiaye marié na am na benn soxna bu ko bëgg te toppatoo ko. jërëjëf merci beaucoup nga xam ne rek mooy armée de l'air euh, septième gloire comme ni mu ko waxee dañ koy bàyyi mu daal di ñuy détaillal laata ñoo ñëw ak moom ci li nga xam ne mooy xew-xew yi ko indi ci lii nga xam ne mooy accident boobu euh, Cheikh Ndiaye euh, dama lay bàyyi rek nga daal di àddu ci lii awa daal di wax léegi ci portrait bi nga daal di ñu koy gën a faram-fàccee. waaw man maa ngi tudd Cheikh Ndiaye. Hmm. ñu gën ko xam ci bëgg fàllu. Hmm. man awma lu dul euh, sëñ Fallou mm-hmm. mooy sama weeruwaay ban année nga man maa ngi juddu quatre-vingt-sept mm-hmm. waaw maa ngi dugg armée 2010 2010 ñu affecté ma septième groupement opérationnel de l'armée de l'air mm-hmm. ma nekkoon Thiès def naa def naa fukki at ak euh, lu teg avant ñu ñuy résilier sama contrat mais ndog-ndog gi ma dal nii mu ma dalee Mali. waaw si ministre li ñuy wax MINUSMA. Mm-hmm. foofu laa nekkoon. Mm-hmm. ndog-ndog gi mu ma dalee. MINUSMA mooy lan. MINUSMA mooy pàccum boo xam ne ONU moo ko yor. Mm-hmm. si dans le cadre dans le cadre de mission des Nations Unies au Mali. ok boobu MINUSMA. Euh, ndog-ndog gi mu ma dalee le 16 octobre le 16 octobre. dama ndog ndog gi dalee. 2019 2019. 2019 ba may may may may wax ak yéen nii maa ngi tëdd benn place. Mhm. laata 2019 dañuy ñëw ci 2018 euh, ginnaaw bi nga xam ne rek ci lañ la yebal euh, fële ca Mali bi ngay dem sa borom sa soxna mi ngi woon na lor. waaw mi ngi toll ci combien de temps. bi may dem sama soxna mu ngi woon na lor ba mu fa amee 20 jours sama doom ci la judd si sama ginnaaw. Mm, maanaam bi ngay dem mi ngi ci weeram. moo nekk kii ne maamam mhm. uuf. bi ngay dem mi ngi ci weeram. mi ngi ci weeram. Mhm. Euh, dem bi naka la demee woon. dem bi dañoo def regroupement euh, dañoo def regroupement comme ñëpp ni ñuy defee regroupement loolu dem ñu dem. Mhm. ma def un an un an yi jeex euh, ñu prolongé ma si sama bu ma juum sama quinzième mois voir seizième mois ca ndogal gii dal. Euh, bés bi sa doom di juddu buñ ci dellusee euh, dem nga mu am ñaar fukki fan mu daal di juddu euh, ñu jot la téléphone yëgal la ko wala naka la demee waa sama sama jabar yi jot na ma ko jot na ma téléphone. Mhm. yëgal ma ko mais man damaa xam ne pour jàmm réew mi jàmm askan gi. Mhm. kon ñun jot nañu dëdd suñu jaboot ci ginnaaw. Mhm. man armée ma muy tax sama jabar armée la ma fekk fekkewu ma ko. loolu yëpp pour xeexal sa réew la mm-hmm. ku ku xam jabar ni mu neexee ñu taxal la ko fekkee woo ko mm-hmm. sa doom muy judd fekkee woo ko mm-hmm. loolu yëpp téléphone lañu koy wax bañ la ne am nga doom muy jigéen waaw ma santaat ci yàlla bu baax jàpp naa ne sant rek moo ma war doom moom rek laay continuer di def euh, loolu am euh, mu def euh, quelque temps après quelques mois nga daal di rek dëgg ma li nga xam ne mooy màggal Tuuba da d'ailleurs ñëw naa fi congé li ma ñëwee congé tabaski ma tàggat si laa si laa ko a gis sama doom mm-hmm. ma tàggat ma tàggatook sama jabar delluwaat delluwaat ca liggéey ga euh, liggéey ga nag ca la ma yàlla nattoo mm-hmm. euh, jour bi ñuy nee suba la màggal mooy veille màggal ca la yàlla dogal li yaa dogal gii mm-hmm. euh, ñu ne ma los bi moo amoon problème ndax fi ma dal mbëkku fi nga dal mbëkku ah, am na ah. lu ko jiitu laataa loolu dañuy dem seetaani benn témoignage muy boo xam ne rek bu soxnaam la muy jàmbaaru jigéen moom it euh, comme ni ñu fekkee Cheikh Ndiaye mi muy jàmbaaru góor euh, mu doon koo xam ne ku brave la euh, koo xam ne jàppale na borom këram li ñu naan mariage pour la meilleur et pour le pire mu jàpp boobaak léegi bàyyiwul ba tax na dañuy dem seetaan exemple soxna su baax soo daal soit léegi ci waxtaan bi sur la 7 ci seen émission 7 voix du boobu ñun ñu ngi fii ñëw boobu ñun ñu ngi fii moom mi ngi Mali affaire bi Mali la ko fekk euh, béyu màggal bu ñuy suba la màggal ci la daanu ñu yóbbu ko opéré ko indi ko boobu ñun ñu ngi fekk sax Touba maa ngi yóbbaale sama doom bu ndaw bi ki ma am ak moom naa maa ngi ko yóbbaale Touba mais jour boobu sax xale bi dafa xam dafa xam dafa mel ni sax xam na ne papaam am na problème mm-hmm. parce que guddi boobu xale bi nelawul ba bët set day dàqanteeg man ci biir jumaa ji ma koy dàq pour mën koo jàpp pour mu ñëw toog tëdd mais tellement jour boobu nelawul ba set rek xam naa ne peut-être da xam ne papa ji am na lu ko jot parce que ba ñibbisee ci dimanche bi nag ndax parce que maa ngi toog ñetti fan di ko ñaari fan di ko woo mënuma kaa jot mais ci dimanche bi nag laa ñëw ba ma ñibbisee nag laa laa topp di woote di woote di woote di woote ba jot ci benn xaritam foofu ci la ma expliqué ne li ko dal foofu mais gëwuma ko woon ndax parce que maa ngi doon dégganteeg moom jour kii wu màggal veyu màggal maa ngi maa ngi dégganteeg moom xalaatuma woon loolu suñuy expliqué na ne dafa daanu foofu mais mi ngi ko yóbbu mi ngi ko yóbbu pour di ko opérer affaire yooyu noonu après ci dimanche bi lañ ko indi principal lënd bi lañ laa ba mu xëyee lundi ma dem ànd ak sama yaay dem principal waaye yoonu principal bi yëpp dafa mel ni téeméeri yoon la si man parce maa ngi xool lu may demee ba egg principal ba gis ko avant ma koy gis sax ba ñu defee ne xaar lañ parce que boobu ñu ngi ne woon kii la nekk réanimation te foofu du ñëpp ñoo fay dugg mais mag sama yaay rek ba ñu nekkee si biti pour balaa may dugg foofu rek lu ne la daj nañ ko sama lu ne la wax fa mu jëlee ma ne dem bàyyi la fi wala bañ laa wala doo ko gis nga ñëw ñu dem ñibbi mais ba mu demee dugg gis ko mu tëdd jël ay affaire yu nekk fu nekk ñu taf ko fu ne ñu bàndu tak mais mu ne ñàdd dara am yënguwul léegi sax na ndax loxo yaa ngi yëngatu mais premier jour bu ko fekkee principal daraam yëngatuwul amul woon dara dara du bopp du loxo du tànk du dara comme dangaa teg sa benn yat rek teg ko mu tëdd mu metti woon trop nag nekkoon ay gudd yu metti sax ñu def fa 5 mois juróomi weer yoo xam ne juróomi weer yu metti sax waaw juróomi weer yu metti sax donc surtout premier weer surtout premier mois yi nga xam ne si feebar bi si lay doog a doo a nekk feebar bi metti woon nag torop amul nelaw am nelaw doo nelaw mm-hmm. da koy àndandoo mettit bi tëraay bi neexul woon daal ay guddi yu metti weer yooyu mm-hmm. nag dañ naan sant yàlla parce que jaam ku yàlla kum bëgg rek moom lay teg nattu mm-hmm. te dañoo jàpp ne nattu la nattu yàlla la waree jeex rek dina jeex bu di suñu borom ne fii lay yem fii dañuy xam ne rek fii lay yem ah, mi ngi am un an six mois un an un an trois mois la sama doom la sama doom ci laa ko feral sax ba am daanu feebar ma ñëw premier jour bi ma njëkkee ñëw hôpital deuxième jour troisième jour ki ma ko fa bàyyeel gis naa ne tée bi ne tée bi neexul mag la mënut ma ñëw ne sama papa de Zeyna mii de gëm naa ne su ma demaatee du ma ñëwaat hmm. comme comme papa ngi tëdd rek man sama xel yëpp si sama papaam la nekk parce que man xam naa waajur yi ma yàlla may sama yaay dafa baax sama papa tamit noonu ñoo bëgg samay doom ñaar rek la ma yàlla may mais sama papa ak sama yaay ñoo leen gënal lu ñu am moo tax du ma tëdduma daanu ma tëdd sax ba xalaat li ma jur parfois guddi xam nga hôpital moom xasee bu guddi rek bu ñu bàyyi la ay bu ñu bàyyee garde yi fa nekk rek xasee bu guddi rek mooy loolu noonu dootoo gis kenn parfois mu fat du mun a nooyi maanaam tufliti mooy dajaloo ci dënn bi du mën a nooy soo defee lu ndaw tuuti rek amaana mën naa mu dem day nekk dama koy nekk maa ngi moom ci guddi gi di ko bësal dënn bi di ko frotté ba mu fuurit yooyu nekk ci dënn bi dal di mën a génn pour mu mën a nooyi waat nokki waat nooyi noonu laa daan dundee moo principal parce que un mois yoo xamante ne noonu laa dundee ëpp na sax un mois xanaa deux mois xam ne laa doon dundee ak moom biir hôpital ba guddee rek jeex na dootoo am jàmm ñu jékki-jékki fat mun a nooy fekk yi ñooy càng fii dënn bi doo gis kenn musul perdre dara non non moom ni mu mel nii la ko yàlla defee moom xanaa cër chaque jour su ma koy tooñ sax suñu xulóowee ba nañ tooñ wala may kaf ak moom dafa naan kaan feebaroo ndax sa yaram bi dox rek nañu wutaleeg man ak yow boppam macha allah kaf ree am jàmmam ni mu tëddee ni ñeneen tëddee téléphone am boo mu yor ci lay nekk waaw xam nga moom bëgg mooy chaque jour rek nu mu def ba jub fi mu tëdd pour mën a euh, dimbali njabootam chaque jour moom moom waxtaanam loolu la ci xamul benn waxtaan waxtaan nuñ ko fi jëlee moom fii nii mu dem faju ji wala nu mu nuñ ko mën a dimbalee ba mu mënal boppam dara bu dul ci loxo wala ci tànk wala ba mu dem uti ay activité am dox dara dimbali njabootam loolu mooy waxtaanam ci amul waxtaan amul moom amul waxtaan loolu kese mooy waxtaan defoon nañ sax pour ñu yóbbu ko extérieur médecin yi moom moo génn ne moom moo ne mënul moom ba moom ay médecin la dépendre daal cystocat lañ ko defaral boo xam ne fii lay nekk parce que sonde bi mënatul ñëw foofu <laughs> moom xale bi moom xamul moom jàpp na ne sama papa mooy papaam léegi la sax xaw a tane nii xam nga xale yi ñoom bu ñuy gis tuuti tuuti rek la ñuy di lii mais moom tontoo Cheikh Ndiaye lay wax man kaa ajaar sama papaay papaam sama yaay mooy yaayam waaw bis ma ko njëkkee gis ñu tëral ma ko principal te muy jóge fii nii tabax si la woon ñu tabax si ba pare mu dem dara comme nii rek ñu woo la nee na sa jëkkër daan na nga dem fekk mu ne ñaat mu ne ñaat mel ni bant bu tax tëdd bis boobu moom ba may dee duma ko fàtte waa ndimbal rek ku ma ci dimbali rek bu fekkee ne mën nañ koo dimbali mu jóge fii mu tëdd ñu dimbali ko mu jóge fii mu tëdd mën nañ koo jàppale mu dem faju ji extérieur tamit jàppale ko mu dem faj ci extérieur ñun ñëpp xam nañ ne suñu faju fii ak faju fee bokkul de gaa bu fekkee sax nii lay mel sax mais fee boo fa demee di nga am tuuti évolution bul ci ay loxo di ko am ci ay tànk fii ak fee bokkul médecin bi ne fii sax bu ne boo ko yóbboo fële nii la feebaram nii la mel ah bu demee fee dina am changement Macky Sall de bu ñuy mënoon dimbali ci moom bu mënee dem sax bu mënut ko am lépp sax moom sax tuuti mën a def ay activité mën a liggéey parce que liggéey rek la bëgg kese kese liggéey kese la bëgg bu sañoon sax toog ci benn taabal wala toog ci buntu kër gi sax di di di yëngu si dara te mu amaana bu ñu ko jëlee woon bu ñu ko jëloon fii tuuti yóbbu fee bu ñu bisee dinañ gis tuuti résultat parce que may melu woon nii commencement bi ku tëddoon na ñaar di daara benn place la tëddoon bu day def massage au fur et à mesure ñuy doxal di doxal ak moom di doxal ak moom ba mu mën a di utiliser portable di mën a toog normal di mën a yëkkati bopp bi mais xam nga fii faju fii ak fee bokkul buñ ko yóbbu waaw moyens yi tamit bokkul bu buñ ko yóbbu woon fee nag amaana nag mu ne peut-être dina am tout tout dina am changement bu dee nii lay mel sax te bu dee mel nii tamit sant yàlla la parce que yàllaa ñu ko teg lu ñëw ba pare la mais bu ñu ci mënee dimbali tool ne ar tuuti sax yóbbul ñu ko fee mu faju ñëwaat man de dina ma jërëjëf euh, Cheikh Ndiaye euh, ku ko dégg téléphone lam lay njëkkee wax sax mooy sama soxna euh, ndax mën nga ñëwal ci li nga xam ne rek loolu la àddu laataa ñoo ñëw ci choc bi ni mu dem. Ah, sama soxna moom bu ma doon wax fii ba suba du jeex ndax ku gore la ndax ngor rek moo ko fi te leen teewoo fi. dara nekk fi ngor rek moo ko fi téye moom nag mu nekk ku gore euh, ndax tey bu xëyee mooy sang si nit koo xam ne nit ku feebar la mooy yëkkati mooy tëral mooy joxe lekk loolay mënimam dematul fenn fenn fenn fenn fenn fenn fenn si àdduna bu xëyee day jàqalu man ba ba heure tëdd jot mu dem tëdd dematul fenn Euh, mu nekk loo xam ne da koy dund ba mu xam ne lii muy dund man xam na en âme et conscience attanu ko mais nag ngoram moo ko fi tee mais alal téewu ko fi dara téewu fi ndax dara gënta metti euh, sa jëkkër nga yeewu summi ko di ko ragg amaana am na moment yoo xam ne da ko doon def ma xool ko ci ay bët ay rongañam di toog daf metti ndax dara gën a metti sa jëkkër fi mu tëdd fa fa lay fa lay sango fa lay defee toilette doomam moo koy tiim moo koy tiim doo mosum wax cim wala mosum wax cim bay mu nekk loo xam ne nag masa euh, lu metti la euh, sa soxna toog sa wet jàppale la euh, ci ni mu waree li ma naan euh, muñ boo xam ne àndul ak onko ndax nit nekk na fi di muñ ba tàyyi te bu méttee di nga ko booleeg saalit di nga ko booleeg waxtu di nga ko booleeg lu nekk waaye seen ndey mbili gi euh, moo ko seetlu ba xam ne su ko seetlu mosu ko daw mosu ko bàyyi te à chaque fois bu xëyee day mel ne tey la gën a pare pour jàppale ko duñ ci xuus comme duggaguñu ci fee yi li ko indi euh, dama koy bàyyi mu daal di dal daal di dugg ak ñun ci li nga xam ne rek euh, mooy Mali boobu ndax yéeme na trop metti na mooy jàmbaar nag ndax boobaak léegi bàyyiwul fii mu tëdd mi ngi liggéey ndax activité am yépp ci portable am la jéem na ubbi li nga xam ne rek euh, mooy boutique en ligne jéem na def formation en ligne lépp jéem na ko ngir doon jàmbaar Cheikh Euh, métti na waaye naam euh, bëggoon na sargal euh, soxna su soosu nga xam ne ba ma la jotee ci moom nga ma njëkkee wax ak muñam njàmbaaram muy loo xam ne tamit exemple la ndax nit boroom këram nekk na fi ci jafe-jafe ba tàyyi mu daal di dem bàyyi la defu ko benn yoon massa massa Cheikh bu ñu ñëwee ci veyu màggal googu nga xam ne amaana li basculer sa àdduna ci la bokk muy choc boobu nga xam ne def nga ko naka la demee woon. damay santaat euh, yàlla bu baax. Mm-hmm. julli si bi comme na nga koy waxoon santaat sëñ Tuubaa ndax euh, bu doon loo xam ne dañ koy defaat too si. Euh, liggéeyam la la fekk la ma fekk. mën nga ko defaat dama koy defaat. Mm-hmm. ndax man cofeel ga am si sëñ Tuubaa bu doon la xam ne dañ koy defaat gi ñaax ci yàlla dama koy defaat. ndax sëñ Tuubaa jaral na ma ko. rawal sama pas-pas àgg na fa. rawal pas-pas googu euh, tax euh, veyu màggal la woon comme ni nga ko waxee rek ni mu ko waxee ci ay kàddoom euh, am na ci leen loo xam ne fête religieuse yi maanaam dañ koy daal di autoriser même boo nekkee ci li nga xam ne rek mooy àll nekk jàmba nekk ci xeex. ni doon waajal màggal nag nekk ci préparatif yi ci la ko loolu dalee mu daal di rek euh, aalu waaye yooyu yëpp dañ koy bàyyi ñu daal di koy dégg ci kàddoom yaakaar naa ci lay gën a leer te ci lay gën a am détail yoo xam ne di ngeen ko mën a comprendre Cheikh ma bàyyi la nga daal di expliquer loolu naka la demee. Euh, dogal gi bi may dal dalee Mali mhm. mais dans le cadre la mission des Nations Unies. Mhm. armée ñoo ma yëkkati fii yóbbu ma Mali ñoo ma yëkkati to bu may dem wér-gu-yaram laa yóbboon kon euh, ndogal gi dal na ma fa set darewuma ñoom comme ni ñu ko waxee seen seen loxo mhm. mais ma dalewu seen loxo ci loxo kan la ma dale ci loxo kan seen TV déedéet ndax man maa ngi maa ngi maa ngi blessé si biir cantonnement militaire mhm. blessé wu ma ci mbedd dew ma màggal Touba dew ma fenn fa ma nekk blessure bi lan bi euh, jour bi ñu ñëwee suba la màggal tuuba euh, ci la yàlla dogal ma am pas-pas si liggéey gi ndax moom ñu ngi jógee mission mais ñëpp sonn nañ mais man bi ma ñëwee euh, liggéey bi duma ci sonn bi ñu xëyee maa ngi woon ca baas ba nekk ca baas boo ñëpp ne ma noppalul ma ne ko ah, liggéey liggéey Sëñ Touba amul luñ ci noppalul ma pare nekk ca man duma duma du laal li nga gis ni li ma am am fit soxla mu du gis traite mhm. mais jour boobu laa yor paaka di renti mhm. photo yaa ngi fii mën naa leen ko jox mhm. vidéo yaa ngi fii nag yi bi ma paree ci loolu ñëpp ne ma noppalul sonn nga ma nekk ca waañ ba dagg soble géeg ci fecc géeg ci dukat géeg ba ma paree euh, euh, am na ñaari gàtt yoo xam ne dañ ko defaroon ay miss wi pour gan yi nga xam ne maanaam foofu noonu dañ fa nekkat suñ suñu morom. Mhm, ndax loolu dañ leen koy autorisé. dañu ko ah? dañu ñoom ñoo buñ ko autorisé woon. Mhm. kon kon du am duñ du am. Mhm. ndax euh, buñ ko autorisé woon du am kon ñoom ñoo ko autorisé ñoo ko accepté ba ndogal gi am. mais ndogal gi ba mu am mam mu dalee ba ba mu amee ba tey euh, ñoom dañoo daw seen responsabilité. léegi yow yow lan moo la dal exactement. Euh, da nga aalu wala lan naka la demee. man daal. àllu laa ko mën a tuddee xam tax àllu laa ko mën a tuddee ndax euh, yoro jour boobu maa ngi koy wax sànq maa ngi koy junj yoroon naa paaka sama loxo ba mu yàgg ma ne ko seytaane dafa bëri doole xaar ma teg paaka bi te tëddi mais tëdd naa ci laal ba mu yàgg rek ñu mel ne dañu maa yee mu jógal ba ma demee foofu noonu maa ngi ko doon wax fonde gi ñu ma jox noonu pour ma lekk ko ndax jour journée gi yëpp lekk ma dara hmm. fonde googu ba tey duggul sama biir fi ma daw noonu àllu li ñuy wax préfabriqué hmm. ca laa dal ma tëddaat nii mais moo tëddee maa ngi tuddaat yàlla di wax maam Cheikh Rafaal yi lan la. Mm-hmm. si laa xam ne nag ah, am na lu tiis loo xam ne. dal na ma. Euh, ma jour boobu ba tey nag maa ngi ko doyloo yàlla. ku ne méttiwul nag da maa tiimut. wala ku nag maa gis li may dund sama feebar métti na métti goo xam ne psychologiquement dafa métti. Mm-hmm. physiquement dafa métti. financièrement. financièrement dafa metti ndax chaque jour ma ne ko handicap dafa nekk loo xam ne neexut ndax li mu laaj mooy awma ko. Mm-hmm. li mu laaj xel gi ku ma jógewul mënuma ko. Mm-hmm. seet damay dëgër dëgërlu nii ndax sama jabar mënu fee nekk gën ma gore mm-hmm. mais li may dund metti na torop torop torop torop torop. trop bu ngeen gisee tey gis ngeen yaram bi dafa dem ba modifié wu. Mhm. tànk yi dafa modifié wu yaram bi dafa lemu. Mhm. ndax tey science. kinési science kinési dafa cher. Mhm. am doo am dooleem. Euh, bi nga bi nga mbëkkee dafa laal li nga xam ne mooy moelle épinière. waaw dafa laal moelle épinière par la suite ñoom seen. constat nee nañ loolay tétraplégique. nu mu tudd. tétraplégique. tétraplégique tétraplégique mooy maanaam handicapé des quatre membres léegi. handicapé des quatre membres. léegi maanaam maanaam looloo waral ñeenti cër yëpp. Mhm. mu bañ. day bañ dinañ si dellu soit léegi laata loolu dañuy dem xoolee témoignage suñu yaay ji li ñuy jiite sax nga xam ne moom it dëkkandoo la waaye boobaak léegi euh, ñu ci rafetal loolu jëmale ci moom comme ni mu doon rafetalee laata moo jëm fële ca Mali jëmale ci ñoom euh, léegi léegi lay dem ñu dem xool ko daal dellu soit léegi sur la 7TV ci seen émission 7 voix macha allah mu nekk nit ku baax Cheikh nekk nit ku am fulla fayda. Cheikh nekk nit ku jàpp liggéeyam ku jàpp njabootam ku dimbali boppam ak ñi mu dëkkal macha allah waaw loolu xamoon naa ko ci Cheikh a ah, bi mu tëddeeg léegi nag wax dëgg yàlla Cheikh kenn ci ñun ku nekk rek xam nga ne goro tëdd fii kenn ku nekk rek xam nga ne jàmbaar moo tëdd fii Cheikh nit nekk nit ku baax ba mu tëddee ba tey macha allah. cheikh képp koo xam ne jullit nga walla ngay nit ku baax wala ngay responsable war ngaa xam ne cheikh mi tëdd fii ba muy liggéey kenn xamalu ko dara macha allah ah soxna moom dañuy wax ne jàmbaar ngi nii jigéen ju baax a ngi ni jigéen ju fonk jëkkëram jigéen joo xam ne kenn xamalu ko dara ci biir néegam macha allah cheikh mii fi mu tëdd ah, nit fe eh, wér na sax te entretien bi mu am amu ko ndax jabaram fajar la yew lijjanti këram lijjanti jëkkëram macha allah koy ñaanal gudd fan ak rek. waaye xam nga ni sa jëkkër di liggéey di dem di dawi di la indil ba xëy bés sunu borom natt ko mu tëdd te gisoo leneen ci ginnaawam ku sa borom dafa metti ku nekk rek di jigéen xool ko ci sa bopp jëkkër dafa sori ci nit. nga nekk sa borom kër nekk sa njaboot sa jëkkër nekkoon responsable bu dawul dara xëy yàlla natt ko mu tëdd wax dëgg yàlla ñi ko war a dimbale ah du ma ne kenn dimbale wu ko de waaye Cheikh fii mu tëdd képp kuy xool jullit di xool nit ku xam ne suñ borom nattu na la di xool jàmbaar ci biir këram war ngaa gestu Cheikh mii jigéen ju ne nag boo sañoon fa ngay sëy dara du la metti waaye jëkkër ju tëdd nii ñaata at 2019 ba léegi ci xale bu ndaw koo xam ne laqagoo vingt ans yu mat ku ne xam ne de metti na macha allah waaye jabaram mënuma la ci wax lu dul rek yal na ko yàlla taxaw waaw mais taxaw ñëpp daal yal na ko yàlla taxaw laa koy ñaanal. waaw appel bi may lancé mooy euh, di ko lancé ñëpp rek dalee ko ci président de la république soxna Marème Faye Sall. ak képp kuy autorité wala képp koo xam ne sunu borom may na la nga ànd ak doole maa ngi lay ñaan ci daraje yonent bi di la ñaan nga geestu cheikh mii ndax gor la te gor gore rek lay def maa ngi ñaan daal képp koo xam ne dalee ko ci borom réew mi nag de ba wàcc ci suuf képp ku ko yàlla man loo rek maa ngi lay ñaan nga geestu cheikh jàppale ko ndax jaboot la te dara nekkul ci ginnaawam te ba mu tëddee ba léegi dafa yàgg 2019 du tey waaw 2019 du tey ci ku yor soxna yor njaboot te ñëpp nekkoon ci sa ginnaaw nga di leen dimbale ba mënatoo wax dëgg yàlla kuy gor wala ngay jullit wala ngay am dara looy kii rek yërmande rek war ngaa yërëm Cheikh mi gestu ko. merci beaucoup yaay booy euh, ñuy jaajëfal bu baax a baax. daw na yaram waaye nag li ñu naan lii mooy bon voisinage bu ci amee day daal di feeñ bu nakkar daal di ñëwee ndax bu bànneex amee amaana lu bari doo ko seetlu doo ko ràññaatle waaye nag bu nakkar ñëwee ngay xam ne dëkkandoo jàmm ca gën mu waral témoignage boobu euh, ma bàyyi la Cheikh nga daal di ñuy wax euh, ci loolu bi mu amee ñaan ñoo la la évacué wala. ñoom ñi ma nekkaloon ñoo ma évacué. ndax man bi laa ko mën a wax rek. Mhm. comme ñoom. pàcc pàcc googu noonu ak armée bi ba foog naa ne bu mujj benn benn benn pàcc la. benn pàcc la. bi ñoo ma évacué. Mhm. armée bi ñoo ma ñu ngi ma évacué le 22 octobre tax man lii bi ma dalee ñu ngi ma évacué Bamako clinique Pasteur bu lañ ma njëkk a évacué. bu Bamako bu Bamako. Mhm. foofu lañ ma opéré si mooy tout ah, bi bi ngay ñëw Sénégal fekk nañ ñu opéré. fekk nañ ma opéré principal nekk tëdd laa fa nekkoon ak ak. Euh, parce que instant yooyu réanimer mm-hmm. mais man clinique Pasteur bu Mali foofu lañ ma defalee samay yi ñu ma defalee nii. Mm-hmm. mooy opération bi nii. moo nekk opération bi nii ah, dafa tut dafa tut waaw. dëgg la. Mm-hmm. après le maa ngi moo tax le 16 octobre te la ma mbir mbir mi dal. le deux kon ma def fa le 16 le 17 le 18 le 22 octobre laa ñëwaat Sénégal. ci nga ñëw Sénégal ci laa ñëw Sénégal. le 22 octobre euh, laa nekk principal def fa cinq mois génnaat bi ma génn ñu indi ma sama kër mais bi ma indee sama kër laa ne ah problème am na. Mhm. ndax problème am na mooy maanaam koo xam ne feebar bi yow mii ak keneen ak kenn boo ko laajtee lan la ñu ne xamuñu ko. ndax le terme tétraplégique si laa koy door a dégg. Mhm. kenn xamu ko. te nit koo xam ne feebar na feebar boo xam ne kenn xamu ko. nga yëkkati ko jagar jagar ko delloo ko këram. delloo ko këram mooy maanaam demal dee. Mm-hmm. mais nag yàlla mooy rey. Mm-hmm. moo tax ba tey deewuma. Mm-hmm. mais lu dul suñu borom. 2019 ak léegi 2019 ak léegi. métti gii may dund te bi ñu lay génnee opital boobu gënoon na garaaw nii. gënoon na garaaw gënoon na pire. gënoon na gënoon na garaaw. mais ma muñ loo ko suñu borom. yaakaar yàlla rek nag doyloo yàlla moo tax nee gis nii. du ma bugg sax dugg ci cadre armée dañu naa ci dugg tuuti ndax mënumaa feebar seen loxo ba pare ñu buggaat tamit ma dox nekkaat seen ginnaaw di leen saraxu pour ñu dimbale ma ma faju ji mëntaa nekk ki mar leen rek la soxla may ko naan bu ko mënta may naan mënumaa boole mar ak wax kon jàpp naa ne damay gën a damay gën a mar moo tax ma ne teg mais tey ñoom gis nañ ma mais jusqu'à preuve du contraire ku nekk da ngaa jàpp fi nga jàpp mais man yëlwaanu ma ndax góor laa mm-hmm. damay tàllal loxo ndax dama cee toll mm-hmm. ndax ba may toll ci liggéey sama bopp mosumaa tàllal loxo mais damay tàllal loxo ñan laay tàllal loxo gouvernement gouvernement bi boo dégg ñu wax gouvernement gouvernement kenn moomu ko mm-hmm. ndax képp ku nekk ci gouvernement bi dañ dafa fa teg te ñun ñii lañ fi nekk ñun askan gi man waxuma sax en tant que militaire ku servir sa réew pendant des années mais bu ma nekkoon un civil en tant que sénégalais. en tant mm-hmm. bu ma nekkoon un sénégalais nga xam ne c'est le pire des sénégalais bu ma feebaree dañ maa war a gestu rawatina man mi nga xam ne dama nekkoon ci euh, waar bi. ndax mm-hmm. ku xam armée xam ne metti na xam ne ay difficulté la nga def fa fukki at ak lu teg kon bu la ndogal gii dalee war nañ ci mun a yeesu seen àq. Mm-hmm. bañ a bàyyi ay document yuy topp di wax document bi dañ ko war a mu dem fee document bi dañ ko war a mu. document boo maanaam yow da nga jàpp ne protocole bi yéex na par la suite dañu dul faale. ndax armée moo nekk loo xam ne kii day ñëw fii 6 ñu relevé ko mu dem beneen poste kii kooku noonu document yi ko joxoon fàtte na ko muy dem talu ko te dund gi may dund metti na trop bu ma demee ba euh, civil yi andi jaam yi ñooy jàpp ci combat gi moo non duma du ma du ma yàlla ak yonente bi euh, mbokk taalibe ñoo tax ma agsi fii nii. Mm-hmm. ndax génn nañ fi moo def fi interview ñoom ñu génn. di répliquer ne ko jox nañ ma lii jox nañ ma lii te yàlla rek laa ko seede loolu amut. Mm-hmm. lii médical gi ngeen gis nii te lal bii ma tëdd ay bonne volonté ñoo ma ko jox. ñoo la ko may ñoo ma ko may. Mm-hmm. chaise bee ma ne ma yoroon bu njëkk ba ay bonne volonté ñoo ko may. Mm-hmm. mais nag dafa toll foo xam ne euh, nit ki bu tëddee mënatul la muy am. si yéen ngeen ko prime d'invalidité ngeen ko jox mën a pension d'invalidité si yor nit ku feebar nga war cee fay location fay ci courant fay ci ndox bug ci yor sa bopp bug ci yor sa jabar bug ci yor say doom day metti mm-hmm. te ñoom ñu ne am nañ programme programme boo xam ne créé nañ fi ay cent mille logement ak c'est caisse sociale ak ak yeneen ak yeneen ñooñu noonu ana anama mm-hmm. man anama fan laa ci fetu damaa toog ba mu yàgg man na gisuma sama bopp te toll na ma gis ma gis sama bopp ci réew mi man ci réew mi laa bokk te man damay damay casse ce qui me revient de droit ngir yàlla nañ ma ko jox soxla ma ñu jox ma surplus mais ñoom ndax wax nañ la ne lii mën na wér biñ lay génnee hôpital man waxuñu ma dara si feebar ki waxuñu la si dara maanaam turu feebar bi rek lañ la wax turu feebar bi sax waxuñu ma ko mais par la suite euh, man maay xool dossier médical li ñuy bind comme loxo yi mënut ta jàpp nii mais dinaa ngëm téléphone gi def ay recherche def recherche ba yàgg ñun ma feebar gi médecin yi koy yi koy toppatoo amul Sénégal ergothérapie amul Sénégal ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen amul Sénégal ni ko war a li maanaam même feebar gi boo mënut a ñëwaat à cent pour cent boo demoon à l' étranger mun nga amee lu kawee sa njot maanaam di nga mën a toogal sa bopp di mun a lekkal sa bopp di nga mën a yor say loxo di puusal sa bopp si fauteuil mm-hmm. mais 4 ans yi ma tëdd nii yaram yi dafa dem ba suudewu fi mu nekk ndax euh, li tax lu waral matelas bi da nga da nga commencé woon am escar wala. tey may wax ak yow nii euh, am na am na ay góom boo xam ne mu ngi fii nii dafa dem ba laal yax bi. Hmm? nii may wax ak yow nii bu la ne mënuma ko foto am loo xam ne kenn mënu ko wone hmm. mais ni ma tëddee nii góom yor fi góom boo xam ne dafa dem ba laal yàq bi. Hmm. boobu amagoo lii. am naa ko sax boobu am naa lii mais ci dara ndax position bi laay yeewoo moom laay fanaanoo pendant naa ans nga def nii. pendant quatre ans gis nga bu ngoon jotee sama doom bi moo may sotti ndox mu sedd guy sotti ko ci yaram bi. sa doom waaw moo ma koy mhm. sotti. Mhm. mu ne papa tàng na de ma ne ko waa may lan laa ci mu jël glacière bi xooyal ko xooyal ba mu ndox mu sedd mu sotti ma ko ba yaram bi hmm, foofu la xelam tollu xale la. non pour maanaam ndax yërmande gi ñu am ci man mhm, yërmande bi ndax gis nañ néeg bi nu muy tàngee gis nañ man condition yi muy dund solution boobu la am mu jël mu jël bu may may ndox si pot bi jël ndox li des si ndox kaas bi yëpp. Mhm. sotti ma ko. Mhm. doy euh, demee ba xale. jéem a am solution ci papam bu tëdd 4 ans yaakaar naa ñun ñi nga xam ne ñoo ngi ci réew mi war nañ euh, ci ñu nit lu ak comme ci man ci doon loo am rek comme ni nga ko waxee léegi euh, nekkatul ay fii gaañoo lii moo ma dal ñii ñoo ma war a faj ñun liñ ciy sàkku rek mooy na wér Euh, te nag ñuy lancer appel ñëpp ñëpp ñëpp bon volonté yi Sénégal lépp ñëpp la ñuy lancer appel bàyyiwuñu kenn neen ñu ko jàppale suñu jàmbaar ji ndax nag buñ ne 4 avril ñu sargal leen euh, ñu daal di yëkkati ay drapeau waaye nag am na yeneen yeneeni bés yeneen yeneeni bës yoo xam ne mu ngi ci at bi yoo xam ne bëri na ci ñu mel ni ñoom muy militaire invalide yi ñu tëdd seen rëkku di jooy mu metti lool lool lool te amaana la ñu war a jot dëggantaan jotuñu ko kon nag nañ leen leen jàppaleel bonne volonté yëpp jàpp ci ñëpp jàpp ci kenn bañ a bàyyi ba tax na dañuy dem seetaani ay témoignages daal de soit léegi sur la set tv ba tey rek ci seen émission 7 voix du cœur tous les mardis ngeen mën ko am 21h ñu dem ñëwaat léegi léegi. Ah, man de euh, ginnaaw euh, bi ma sant yàlla euh, julli ci yonent bi damay ñaan yéen ñi nga xam ne yéen a ñëw fii seen tànk yi ngeen def ñëwee fii yàlla ko yàlla def tànk yiw dellu bi tam yàlla def ko tànk yiw li ngeen def nii nag defalu leen ko kenn ko dul ñun ngeen ko defal wax dëgg yàlla ndax cheikh mi man may bàyyi soxnaam. waaye man may bàyyam itam ndax léppam man la eh, cheikh mi tey jii nekk na koo xam ne kii comme ñu ko fi njëkk jaar wax ko rek ñun amuñu payam parce que dafa nekkoon koo xam ne kii bi muy wér péng dara jotu ko man de cër la ma jox boo xam ne bii sama jaboot lépp lu may def ak lu may wax ci moom laa ko bàyyi woon kon tëraayam bi mu tëdd nii li mu koy métti métti métti métti métti ñun ñi nga xam ne ñun waa waajuram ñun la gën a métti parce que tey jii bari na lu ñuy sonn ak di ko dox di ko wax tey jii may nañu loo xam ne ñun xamoon nañu bu taxoon tey dara jotu ko doxalin boobu yëpp moom moo koy doxal nu mu gën a ñu ko kon tey bu nii dafay nekk loo xam ne lii lu métti la te tëraayam bi tëraay bu métti métti la. waaw euh, ni ma koy dundee ak sama doom mooy li njëkk mooy damay sant yàlla mi nga xam ne moom moo ñu bokk bindi ñëpp. lii yàlla def ni muy natt boo xam ne bi dafa yegg si ci sama njaboot du ma wax ne dafa yegg si ci moom sama njaboot mooy lan. soxnaam ak njabootam bi nga xam ne ñoom la jur ak ñun ñi nga xam ne ñoo leen seen waajur ñun moom lu ñuy def moom mooy dañuy xam ne lii nattu la boo xam ne yàlla moo ko teg ci suñu kaw ñu fas yéene muñ natt boobu ndax nattu jaar na fi ci ku nekk ba yàlla fas yéene ko teggi rek mu teggi la ko kon nattu ki yàlla bëgg kooku la ko yàlla def ci moom la yàlla di nattu donc bu la yàlla nattoo doo def lu dul sant ko nag di ñaan nag nu mu la ko gën a oyofalee waaw loolu rek la ñaan yàlla waaw euh, xuloog sama doom moom man Euh, mënumaa waxagum loolu parce que lu tax mënumaa wax loolu ndax moom amuñu jot boobu ndax moom bi mu koy jël yàggul dara benn doom la ñu am benn doom la ñu am bi mu koy jël yàggul dara ñuy préparé nu mu war a demee ci këram ya loolu sotteegul sax yàlla ndatu indi ndatu bi kon kii ñun xamul xamuluñ ko Eh, eh, réew xamul luñ ko xuloo xamul luñ ko dara dulul ni mu war a toppatoo jabaram noonu doonoon topp jabaram ba yàlla nattoo ko li mu ko nattoo noonu donc ñun gisaluñ ko benn benn défaut boo xam ne mën nañ ko ko waxal lu dul même li muy mel nii mel nii mel nii mel nii tamit terewul cër bi mu war a joxe ba léegi mu ngi joxe cër boobu. waaw kon li ñuy ñaan yàlla rek mooy yàlla teggil ko natt bi oyofal ko ko. xam nga dama ko koy wax toujours eh, fi mu nekkoon ba lii dal ko fa yàlla moo ko fa yabal kenn yabalu ko fa. kon tey su fa demee ba loolu dal ko moom du kenn ku dul yàlla léegi nag li ñuy ñaan nag moom ñu mooy moom fii mu tëddaay bi mu tëdd nii lu waay mën ci defal ko ci lu mu lu ko lu ko lu ko mën a jàppale loolu moom ñun euh, bras ouvert vraiment la ñuy ñëwee parce que dañuy xam ne yàlla moom moo ko dogal waaye yàlla def na fi yàlla wàccul jox kenn yàlla wàccul jox kenn mais dafa yabale dafa lay jox nit dafa lay jox pour nga joxe kon dañuy ñaan yàlla képp koo xam ne ki daal mën nañoo dimbali ci li nga xam ne moom mooy tëraayam bi métti na lool charge dëgg la charge dëgg la charge dëgg la parce que lépp lañ koy defal mobilisation totale lañuy def ci kër gi toujours am na ñoo xam ne ñu ngi toog di xaar pour lu mu soxla wala lu ñu ko war a defal ñu defal ko ko kon képp ku ñu mën a jàppale ci loolu tamit wax dëgg yàlla ba lii war a nekk loo xam ne lu oyof la wala wax dëgg yàlla dañ koy jël mbir mi nag mbirum yàlla la dañuy jël lépp bàyyi ko ci loxo yàlla yàlla ku mu sant nga def da nga def incha allah donc ñun loolu lay appel boobu la ñuy lancé ci kilifa yëpp ñun jii ñu ko kenn ku dul yàlla moom moo ko moo ko bind moo ko fas yéene mu mel nii moo fas yéene mu taxaw fii benn doomam bi la am mënatul lenn mënatul dara mu toog kooku ñaan mais dañuy ñaan ñi nga xam ne ñoom la bokkal nag yàlla bàcce leen fii lu si waay mën rek mën ko jàppale jàppale ko mën ko dimbali dimbali ko loolu la ñuy ñaan yàlla seex mi de sunu lépp la sunu wolare la sunu dëkkandoo la ku am diine ku am lislaam ku am yar ak teggin ñun ñi nga xam ne ñoo di dëkkandoom fii ci koñ bi kàddu gi benn la muy seede bu rafet bu yàlla def ci moom tëraay bii ko yàlla teg nag ku dëkk fii rek ci koñ bi rek metti na la lool ba ci kanam yàlla rawatina nag gorom bii kii gor la ku jafe la ku maandu ku nangoo liggéey ku nangoo jariñoo ñaxam bi ci des mooy seex nun ñi di dëkkandoom liñ ko mën a seedeel mooy gore ndax tëddaay bi yàgg na trop jàppatuma ban année la mais yàgg na metti na maanaam ku ko xam seex rek xam ne lii ko dal lu méttee méttee metti la wax dëgg yàlla te seex du ko jàmbat du ko dis kenn waaw nun bi muy wér ak di man ñoog seex la ñu nekk moom ci jàmm ju rafet ju neex ñépp nag Cheikh de man gis naa mu jël doomam sax boot ko ci ginnaaw takk wallaahi kon xol bu rafet moo tax muy def loolu Cheikh yërëm na képp ku mu nekkal fii Cheikh li ñu xam ci moom mooy Cheikh am na taalibe Cheikh am na yar am nay teggin am nag dal bëgg na xaalimal Moustapha euh, man kay damaa ñëw rekk waaru accidenté na ma ñëw gis ko mu jaxasoo mu mel neneen mu yéem ñépp nag ci koñ bi ku fi ñëw rek jooy nga barke sañ Touba kii bi muy man àddina bi yépp xam nañ ne ku man la kuy defar kuy maanaam kuy jël sa doom di ko boot ci ginnaaw ci góor ci seex mi laa ko mas a gisee seex defe naa fóot sax def na ko fóot man di gisuma lu mu deful man kay keroog bi ma ko tiimee suur boobu samay rongañ wàcc na yàlla mi ñu tiim xam na ne keroog bi ma jógee màggal Touba ñëw ñu ne ma seex dafa accidenté bi ma ñëwee li ma def la ñëpp def jooy parce que day dëkkandoo boobu ci koñ bi maanaam macha allah yal na yàlla dolli sutura lii de bu fekkee ne lu ñuy teggi la teggi nañ ko bu yàgg waaw ah, moom nag xolam bu rafet la ko yàllay fay xol moom xam naa loolu seex mi yàlla xolam rek la koy fay. waxuma la fa mu accidenté man fekkewu ma mais distance ba ñu koy jëlee foofu indi fii mën naa demee neneen ndax ni ma ko fekkee nii rek booba doy na war xawma oto ko indi ma avion ko indi ma lu ko indi waaye xam naa daal yàlla daal ci la bokk moom ndax moom bu teelu woon a ñëw hôpital dina deme neneen ci sama gis-gis man waaw waaw ci lu wér kii daal euh, ku man ku ne te mën a dimbali doomu aadama war ngaa dimbali seex waaw ndax seex day euh, ngorom la tëdde fii du dis kenn dara du jàmbat kenn dara boroom gor nag maanaam ku jara jàppale la parce que bu doon nan keneen maanaam ñëpp dégg ko waaye ngorom la tëdde fii man moom laa gis ak keneen ku mu beneen dëkkandoo bu mu doon bu ne moom lañu xam ci moom jërëjëf euh, Cheikh euh, bu ma ñëwaatee tuuti ci ginnaaw bi nga gaañoo veyu màggal la woon euh, jouru màggal ndax amoon nga amoon nga maanaam sa xel mi ngi woon ak yow. waaw yàlla dogal nag ba ma gaañoo ba tey. Mhm. ñoom li jommal sax médecin yi wala ñu jommal Sénégal yépp damaa mos a ànd ak sama xel moom moo leen jommal ba tey. ndax genre feebar yi bu la dalee. day maanaam nee nañ tey ki mbëkku. ba los bi damm ba am xaw ma six fracture kooku du ànd ak xelam. Mhm. wartaa mun na ànd ak sagom to man jour boobu ba tey lay wax man li may wax de dama ko jàpp 16 octobre maa ngi gaañu ay 23 heures quelques minutes. Mhm. le 16 octobre ba ma wax yow nii li ma li ma jànkoonte sama feebar yëpp du ma ne jour bu ne mun naa la ko jox mais mun naa la ci wax lu bëri. le 16 mooy veille bi le 17 jour màggal. le boo demee ci archive bi nga xool màggal màggal 2019. le 17 octobre moo nekkoon màggal 2019. Mm-hmm. jour boobu ba tey nag. naka la demee woon jour boobu wala boobu yaa ngi nelaw yaa ngi ci opération wala lan. non jour boobu nag xamatuma si nekk naa dans le mm-hmm. coma. Mm-hmm. le 16 bu mu jumut le 22. bi ma duggee daal bloc euh, clinique Pasteur Malick euh, maa ngi sonnoon sonn gu metti mm. Mm, maa ngi sonnoon sonnoon gu metti mais. nelaw naa fa nag moo jumut euh, le 17 jàpp le 18 ba le 19 ba le 20. Mm-hmm. bi ma yeewoo gis naa ñu may saxal lekk. ba avant ñu lay évacuer le 22. waaw gis naa ñu may saxal lekk ci laa laajte waaw lu xew ba ñu may saxal lekk. Hmm. lu xew ba may saxal ba tey mënumaa xam feebar bi ndax waxuñu la feebar bi lii la. Hmm. Euh, waaye euh, su ma comprendre ci yëf yi ni mu demee yëpp dafa mel ni am na lien bu fort. bu diis bu doy bu nekk sa diggante ak euh, sëñ Tuuba Xaadimu Rasuul waaw sama diggante Xaadimu Rasuul de la ma doon ñaan rek leen daal laa bëgg mu tàqale moom pik ak peel waaw dee kese loolu ci mën a wax muy taalibe di eh, taalibe tiki ñu koy ñu koy dippee bëgg fàllu ndax nag eh, comme ni nga ko waxee rek léegi léegi ni ñu ko waxee léegi mooy buntam ci fi nga xam ne rek eh, mooy yoonu mouridisme kon nag mi ngi noonu muy ko bëgg sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di taalibe mbokk taalibe yi ñu ngi leen di tàllal loxo ndax nag euh, comme ni ma ko waxee sànq rek toll nañ foo xam ne soxlaatuñu di xool maanaam fii la gaañoo ñii ñoo ko war a faj ñii ñoo ko war a jàppale wala kii jàppalewu ko wala kee jàppalewu ko yaakaar naa 2019 ak léegi bu doon loolu kon waroon na passé fii kon nag euh, man li ma am personnellement di ko lancé appel mooy euh, ndax nag lii ma ko laaj léegi dama ko for ci weeyu béy dam dañ dañ ma wax ne ma euh, maanaam ku ku sori la ci yoonu mouridisme ba tax na may lancé appel ñëpp nag bàyyiwuñu kenn muy murid laa laayeen xaajar ñaseen bàyyiwuñu kenn ba ci jàngu bi bàyyiwuñu kenn Sénégal yëpp na ko jàppale nañ ko jàppale waaye nag euh, dafa am foo xam ne bu fa duggee damay xam ne mën naa wér te mën naa jóg ndax euh, tey jii métti na trop waaye maa ngi ñaan mbokk taalibe yëpp jàppale ko nañ ko jàppale ci ni mu gën a gaawee buñ ko génnewee même bu amul lépp mën na am lu mu am am na ci leen loo xam ne mënuñu jël lépp lu lépp la ñuy wone dafa am doom mm, doomam di xale ba muy juddu fekk ko fi muy lu metti dellu si na benn yoon la ko gis daal di dellu pour ñi ñu dab ñoo tax may wax ñu leen di fàttali rek ne ñi ngi ci seen émission 7 voix du sur la 7 TV muy am chaque mardi ginaaw bu 21 na jotee tey nag ñu ñëw seet si benn jàmbaar boo xam ne rek euh, ca waawa euh, da am lu ko ca dal àll ci liggéey la lu mu ci doon rek ñun ndimbal lañuy ñuy ñaan ndimbal la ñuy ñaan sàkkuwuñu ci euh, ŋàññuñu kenn xasuñu kenn woññuñu loxo kenn pour mu jàppale ko waaye ku ñu dimbali te yàlla tax ñu jël xam naa sax stade boobu dañ koy daal di romb muy digganteem ak sëñ Touba Khadim Rasoul ndax euh, gis naa ni du loo xam ne mën na ci sore ndax fi ci xolam toll euh, Cheikh dama lay bàyyi nga wax nu ci euh, jamono yi ci lan nga ne yaa ngi ci sa portable tout au long de la journée yaa ngi ciy liggéey ba nii nii nit dina feebar sa découragé mais mi ngi am ay ambition ndax mi ngi naan day ñëw nekk 7TV chroniqueur ma ne ko loolu mën naa nekk <laughs> mën naa nekk yaa ngi ubbi sa boutique en ligne waaw sànq eh, da nga dugg foo xam ne. Mhm. Euh, bëgguma sax. bëggoo ci sori. bëgguma ci sori ndax bëggatuma tuur ay xéwal. Mhm. mais nag sama xéwal yi Xaadimu Rasuul moo moo ko moo moo ko moom. Mhm. muy euh, même période bi rek euh, muy même période bi wàccaay màggal safar gi ñu nekk nii ca la ko dalee woon. ca 2019 2019 ak léegi nag euh, yàgg na ñeenti at la euh, kon nag ci wàccaay gi lépp lu ci suñu borom euh, wala lépp lu nga xam ne rek nit mu ngi koy def pour borom màggal gi yaakaar naa mun nga ñu cee jàppale defal ñu ko tamit mbokku taalibe bi tëdd soxla ndimbal lool. Cheikh maa ngi woon léegi ci li nga xam ne rek ginnaaw bu ñu bàyyee sa diggante ku tedd kooku dañuy ñëw ci li nga xam ne rek mooy say ambition. waaw man samay ambition bi maanaam feebar naa. Mhm. li gars yi wax noddu naa. Mhm. ku bëgg a julli si na nga ñëw julli si ku bëgg a julli si tamit nañ tàmbale julli. ñoom mhm. ma war a jàppale woo naa leen ñëw nañ ñëwuñu mënatuma xaar ba tax na man sama xel yàlla dogal na li gënoon a métti ànd ak naa sama xel. mënoon naa ñàkk ànd ak sama xel boobaa day gën a metti feebar ba pare àndoon sa xel comme ànd ak sama xel moo tax fi ma toog nii leen rek laa doon sàq moo tax ma koy gën a loxo yi lemu nii bu ma amoon ko maanaam spécialité amul Sénégal mooy ergothérapeute. ergothérapeute maanaam ñoo xam ne ñooy defar ay wàllum loxook ak ñoom seen. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. bu ma mun a jàpp tuuti di bind. ndax man dans ce cas li di wax créé naa fi sama site en ligne e-commerce maanaam pour maanaam wan ni nit ñi rek nit ki mun nga tëdd di liggéey. créé naa fi sama benn site boo xam ne eh, bu ngeen duggoon si internet bi di ngeen di ma tuddee ko garde espoir muy dundee yaakaar rek ndax man en tant dama jàpp ne yoon jeexul waaxu du jeex moo tax ma jël sama i boutique boo xam ne e-commerce la tuddee ko garde espoir hmm. am naa sama logo boob mais par la suite concurrence marché bi dafa metti dafa metti si laa waxoon il faut ma am ma bàyyi ko ba yaram bi xaw a tanewaat tuuti comme dafa sooxee hmm. mais ubbi naa ko mu ngi def naa ko mise en place pare na hmm. dama doon ñaan fournisseurs yi nga xam ne mun nañ ma jàppale comme quoi que ku ma jox ay marchandises ma dugal ma dugal ko sama boutique mhm. lu ma ci am bu ma jaayee ma joxaat la li nga joxaat ko euh, mën mën cee faju mhm. jàppale ko loolu dem naa sax sànq ba leen yéen waa 7TV euh, pourquoi pas ndax ñun ñi tëdd war nañ mën nekk ay chroniqueur mhm. ndax tëdd rek tëdd ak dee wuute nañ mais ma ne ko am naa sama xam-xam dama leen di seetaan Sénégal yëpp da leen seetaan. Mhm. man ne ko dama fay nekk chroniqueur. dëgg la waaw ndax euh, foofu laa toll. Mhm. li nga xam ne nit ku tëdd rek li nga xam ne xel moo koy def. Mhm. ndax man mënatuma liggéey lu am lu lu doole di indi. yàlla natoon na ma tànk yi bañ na. loxo yi loxo yi bañ yaram yi bañ na. nii ni ma tëddee nii boo ñëwaatoon suba ci ànd bi ma tëddee nii ni nga fekk en tant que nit mun maa tourné sama bopp gauche mun naa mun maa tourné sama bopp droite. ma doon ma doon sàqu daal si boutique en boobu noonu. ku ma si mën a jàppale ba ñu booster ko ba Sénégal yëpp xam ko. Mhm. yàlla na ko yàlla def euh, ci yaru safar gi ñu nekk kon nag mbokku taalibe la buy lancé appel euh, doon koo xam ne rek accident bi ma ngi ko dale woon fële ca Mali mu àll woon nag ci veyu Magal Touba euh, ba loolu daal ko ci dal Euh, mu am li nga xam ne rek mooy quatre fracture euh, ci los bi li indi opération bi nga xam ne cicatrice bi affaire bi dafa def tout mu indi tamit li nga xam ne rek euh, mooy paralysie membres inférieurs yi ak supérieur muy li nga xam ne rek mooy membre yi quatre membres yi kon nag li ñuy def rek mooy bàyyi mu daal di rek tàggoo ndax nag metti na daw na yaram doy na waar waaye nag li mu tëdd yëpp mi ngi amee espoir ma bàyyi la Cheikh Ndiaye nga daal di ñuy àddu ci li nga xam ne rek euh, loolu ngay tàggoo ak euh, lan ngay tàggoo ni ñuy seetaan. may santaat yàlla bu baax euh, di leen santaat yéen ñi nga xam ne yéen waa 7TV Sonia ak ñi nga àndal. Mm-hmm. Mm-hmm. maa ngi leen di santaat Cheikh ak Papa Diop. maa ngi leen di bu baax a baax ndax bu woote ngeen wuyu si bu leen neexoon du ngeen ñëw ak dëkk bi nu mu xatee. mais li ngeen di def nii def da ngeen koy def ngir jàppale jaamu yàlla yi loolu dafa am benn kàddu goo xam ne militaire invalide yi dañ maa dugal dem seen groupe di ma wax seen bëbët ñoom sonn nañ trop sonn nañ trop militaire invalide Sénégal yi militaire invalide sonn nañ trop ñu ma yóbbat ne ma sonn nañ trop yuuxu nañ ba sonn manifester nañ sax pour ñun ñun ñaanee na ñoom nañu yëlwaa nañu mais ngir yàlla su lañ leen jox seen ak ak seen yeneen ñoom yenn saa yi ñu am ay cas yu toll ni yu comme sa genre gi nga xam ne ñeneen ñi sax dañuy fàtte sa bopp dañuy dégg yenn saa yi ñu ne la soñaa jëlal Cheikh Ndiaye jëlal Daniel jëlal diw démb damaa dugg si groupe bi si démb dañoo am seen groupe boo xam ne ñu ngi ko créé pour les invalidés militaires mhm. bi ma wonee sama vidéo ci biir groupe bi ñëpp a baax leen doon def ne ma yow lañ yow yow yaa yelloo jàppale man na ko a yelloo jàppale ndax nit ki bu lekkee dañ ko sexal bu naanee dañ ko ko may mm. bu sangoo dañ ko sang lu mu def si àdduna dañ ko defal mm. gis nga am na loo xam ne damaa damaa muntu ko wax mm. mais boo demee ba passé deux ans ñu lay lalal tuwaal yaa ma loolu mooy àdduna gu tukki mm-hmm. ndax tàngoor gi nga tëdd tëdd si mat laa gu tàng ñu lalal la tuwaal si mag ñu jëm waaye nattu yàlla la nattu yàlla la te dama koy dama koy dama koy dama koy sant yàlla. sa digganteeg sa doom. sama diggante sama sama doom euh, nit ñoo xam ne dama leen yërëm ndax tey bu ma sañoon tey ma am fu mu leen dugal balaa balaa may dudd balaa may dudd suuf ma sañoon ma am ma am logement mu leen dugal bu ma sañoon tey balaa may génn àdduna ndax mu yéex mu gaaw yàgg yàgg dinaa fi jóge mais balaa ma fi jóge ñu am luñ ci luñ jàpp ndax tey wéeruwuñ ci kenn koo dégg ba wax wéeruñ ci kenn seen maam lañ am doo ko wax maam mooy ku jege ku jege yàlla mm-hmm. boo déggee maam rek maanaam yaa ngi jege yàlla seen maam lañ am à part seen maam mm-hmm. man maa fi nekk koo tax chaque jour damay tëdd ba mu yàgg ma leen di xalaat ne ko bugguma mukk génn àdduna te awma ñoom si luñ jàpp mm-hmm. wala teguma leen ci yoon goo xam ne dinaa xam ne duñ sonn moo tax may ñaanaat euh, encore une fois euh, surtout ma habitat moom. nañ la ci jàppale habitat dëkkuwaay dëkkuwaay. Mhm. yitewoo naa ko trop te mhm. bëgg naa ko. Mhm. Euh, neexut nga nit nit ku feebar tëdd benn place. di loué di déménager di loué di déménager tëdd benn place. yow ak say doom ak sa jabar si benn néeg. am na feebar yoo xam ne mënoo bokk ak nit. nit bu la seet seet tey fi nga tëdd. fa ngay nekk waaw. Euh, ñu jaajëfal ko bu baax a baax ñu ngi lay jaajëfal Cheikh. maa ngi leen santaat bu baax. daa mel ne laal nga accent séeréer nag ndax li ngay waxee su ma déggee nga wax ba ne too rek damay xam ne laal nga séeréer. waaw man moom. Euh, ndax dégg nga séeréer. dégg naa séeréer. Mm-hmm. kon euh, merci ma nu na paax. ñaanaa naa nun. jam waaw jam. roog a nun jam. Mm-hmm. si foog séeréer fop tamit. Mm-hmm. merci jërëjëf. jërëjëf ni mu koy waxee rek netaleta rek o ane séeréer rek tikio euh, donc euh, séeréer we fop in way ngoya nuun nu ngarna Cheikh Ndiaye yaam a xija oxe wondoo rek te doom lool lool lool lool ndaa euh, te sik rek te sik rek jàmbaare refu donc fogole séeréer sikti yeeno kon nag na ko ñëpp jàppale comme ni ma ko waxee léegi ci séeréer daa wax wax tombi rek ma xam ne kii na pogum nit mbokkam euh, lan na ca séeréer sa kon nag euh, ñëpp woo nañ leen bàyyiwuñu kenn ñuy jaajëfal bu baax ñi ñu àndaloon ci li nga xam ne rek euh, mooy émission bi lee ñu seetsi woon jàmbaar retracé waat jaar-jaaram waaye nag daal di ànd ak moom ci li nga xam ne rek mooy néeg bu lëndëm bi mu nekk kenn fekk ko ci waaye nag 7TV a chaque fois ni ñu koy waxee rek duñ leen ci bàyyi ngeen wéet benn yoon lu mu métti métti ñi nga yéen comme ni muy amee ambiance am li nga xam ne mooy politique am lépp programme bi lépp a ngi ci biir fàttewuñu kenn ba tax nañu jaajëfal leen bu baax a baax ci teewlu bi tous les mardis seen émission 7 voix du cœur ni ngeen koy amee euh, di lancer appel na ko ñëpp jàppale léegi nii dinañ ko jox mu daal di joxe numéro bi euh, Cheikh ma bàyyi la nga joxe sa numéro téléphone sama numéro mooy le 77. 359. 02 114. wala ku ma jotul tamit ndax en sama jabar mooy gën a yor téléphone am. Mhm. mooy le 117 962 29 46. ñaar yéen waa 7 TV mhm. balaa may terminer dama leen di santaat bu baax. jërëjëf li ngeen di liggéey am na solo. Mhm. seen télé bi. seen site bi ñëpp leen di mm-hmm. ca kaw ca kanam. jërëjëf euh, maa ngi ñaan yàlla si bés mi maa ngi ko ñaan si safar gi tamit. Mm-hmm. Euh, mille ak 2024 bu ñu defaat sondage. yàlla ngeen bokk si premier yi. amiin amiin bu ngeen nekkul premier bi yées ba yées yaa nga ngeen doon deuxième si Sénégal. amiin amiin premier lay doon sax ndax lépp la boole comme ni ma ko waxee léegi muy social information euh, culture lépp la boole kon nag macha allah ca kaw ca kanam ci lu baax 7TV euh, ba tax na rek euh, may jaajëfal bu baax ndaw yi ma ci àndaloon tey jii ci cadrage bi Papa Diop ak ki nga xam ne rek mooy Cheikh Sadibou Lamine Mbengue ci wàllu montage bi Papis Mbaye production ci kaw ba suuf bàyyiwuñu kenn di jaajëfal bu baax a baax yéen ñu doon teewlu amuñu seen pay li ñuy def mooy jox leen di daje mardi incha allah ak keneen ci li ci xolam sur la 7TV ci seen émission 7 voix du cœur merci beaucoup à